y no caí asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info du nuyu yi kilifa aada yëpp du nuyu sama sëriñ ñoo tax responsable moral bu daal di Moussa Diouf Moussa yàlla na yàlla def càmm ah baal ñëpp àq di baal ñëpp àq ah, tey nag ñu si jàmm gën ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy Laurent kon ni ñu koy defee à chaque fois di ko encouragé nag bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla fi yàlla na fi defeti yam waaw di ko encouragé di naan ko nag làmb nii la kon ni ma ko waxee rek ba nga duggee ci làmb yàggul mais fexe nga nag ba marqué say empreinte làmb bëgg nañ la macha allah chaque jour yaa ngi wane jom yaa ngi wane yaa ngi wane fulla kon donc li ñu ko wax rek la meilleur reste à waaw àdduna moom noonu la te fii ay jafe-jafe nekk fi xale nga li la dese ci làmb mopp fuuf di ah, félicité ki nga xamante ne moom mooy sekk ndaanaan di ko ñaanal yàlla ndam ni yàlla na ko jik mooy nu nekk xale boo xamante ni wax dëgg yàlla marqué na ay empreinte am franchement kon li ma wax rek bu rek daan ko ak ñeneen barki dem boo njaay tamit bu plateau di ko ñaanal yàlla mooy bu baax a baax di ko souhaiter bon vent di encouragé waat nag ki nga xam te moom mooy Alioune Sèye Junior di ko encouragé bu baax a baax di wax nag làmb noonu la waaw def nga li nga waroon def yëpp entraîné nga xam nga ñëw nga bëre nga daanu nga di la yàlla yow yàlla na fi yàlla na fi defeeti yem ci barke yonent bi di la wax nag wax dëgg yàlla di félicité waat nag ki nga moom mooy Ibou Afia di ko wax nag làmb victoire bi yàlla na la jikk waaw làmbang sa kanam macha allah nga nekk xale bu yaru xale boo xam te ni macha allah dina ñaanal daal tey naka ñu ngi fi si jàmm ka ñu seet si fas yéene waxtaan ak moom ci làmb Laurent gannaaw ba mu bëree combat ak Seck ndaanaan mu di état Laurent ban erreur la def dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi maa ngi lay ziar. ginnaaw ma sant yàlla julli si Mariam samay ñaari waajur di béggee ñëpp di waa di jégalu ñëpp hmm. Laurent dañuy ñëw sa combat ak Seck Ndanane ci côté préparation bi nan nga doon préparé ndax gis nañu côté préparation bi bokkoon na làmb joogu noonu fonk macha allah fekk naa la Laurent dem géej matin midi soir xam nga entraîné mais ci côté préparation mën nga see ñëwaat. waa làmb la woon daj naa si coono. dem naa si Gàmbi. jóge Gàmbi dem Casamance benn saal bu nekk foofu. Korité eh, bi passé fekkuma sama gaale. feetu pag yi fekku ma sama gaale waaw non tabaski fii la ma fekk waaw xam nga ma génn di jaayante ndax combat bi quoi waaw mais lépp yàlla la tamit waaw mais waaw naaj loolu la quoi combat jaraloon nañu waaj nañ ko normal ñëw nañ waaw bëre nañ ko yee yàlla bi ma daa may moo ma xañ ko waaw yee maa sant yàlla nag bu baax a baax waaw ndax làmb daa sew dafa garaaw billaahi man boo xoolee samay combat yëpp man comprendre ma ko waa yee kenn du ma jàpp kenn du ma dóor xaw ma daal man comprendre ma mais maa ngi sant yàlla nag waaw ndax damay nangoo muñ doyloo yàlla ko waa waaw ndax ñi ma daan daan ñëpp ay nit lañ tamit te ay nitama daan ko waa waaw di ko ñaanal yàlla li jik ko waa waaw man xale laa dañ ñoom ñu may bëral ñëpp ñoo ma sama jàmbaar moo ma yóbbu fii ma toll nii yee mais tamit xam naa ne sama làmb dina gën a xaw a métti ndax yee man am na ñoo xam dañ ma bëgg avant maa bëre <laughs> ñooñ noonu bëggeewuñ ma làmb ko waa ñooñ ba tey maa ak ñoom mais am na ñoo xam ne dañ ma bëggoon samay victoire mm. daa ma jàppale waa mm. yee ba ma daanoo sama combat passé dama manqué jàppale bu baax a baax mm-hmm. barke leeru alxuraan mu dem ba si bés bi ma am problème paquetu maanaam paquetu suukar benn paquet dafa maa te barki leeru alxuraan lu ma lay wax nii fekkee amul yàlla bu ma jariñu billaay wallaay taalaay mu metti torop te xam naa ne daanuwaat naa dina gën a métti mais si laay gën a doon jàmbaar waaw ndax yàlla noppi na ko waa yee ndax tey yii nii man ba may commencé dafa neexoon torop hmm. waaw tey jii bu ma ñëwee yàlla waaw teg ma ñaari waa ma ñëw teg la ñaari defet si xale am ñu yaakaar si man comprendre nga tamit damay sant yàlla quoi ndax ñi ma daan daan gënuma leen. Mm. yeah d'accord Laurent dañuy benn stand-by ci carrière bi Laurent sa côté communication sa côté coow balak loolu ñu bari découvrir ñi naan mbër la wala du mbër loolu lan nga ci mën a ñëwaatee. non non du dara. yeah man gars dañoo doo laam-laam mbër la wala du mbër waaw mais fan lañ commencé bàyyi xel ne booy bii nii buñ ko. seetaane mu téye làmb uh-huh. ba may waayal dem France quoi MMA bi waaw ñu xam ne kii nii daa war a doon avenir uh-huh. waaw mais tamit waaw lépp sant yàlla daal waaw maa ngi sant yàlla man waaw li ma yàlla teg ni aka ma kaa nangu barke allah gi fàllu suba suba ñaana ma ko yàlla mm. bu ma demaatee ñàkk damay fogatu ñëw taxawaat yee te xam ne li ma yàlla denkel moo ëpp lu nekk nii nii sama ginaaw nii beneen mooy ko li ma wax sa premier combat da ngaa jëloon Bou Siteu nag li bari woon. wala sa sa premier combat yaakaar naa. maag Plateau la woon. yaa Plateau la woon. waaw après nga daan Plateau. waaw après jël Bou boobu defe naa moom doo ko fàtte mu ko ndax combat boobu. yooyu yëpp tamit xam nga. yee comme comme làmb la woon rek. mais comme coow lii yow yow yaa ma daan jël. Ah. boo ma jëlee lan laa lay wax. Mm. maa ngi daan mii neex mais ah, bësañ ah, ci biir dinañ ma daan. mais lii yëpp maa ngi ko doo lépp làmb la rek. munul wees lu dul làmb ko waa waaw te tamit man yàlla ba ma daa may moo ma xañ. Mm. Eh, damay nangoo muñ déggoo doyloo yàlla ko waa waaw mais xam naa ne sama làmb moom du yomb ko waa waaw. mais da nga jël euh, coow li bari ndax sa combat ak Seck bi mooy deuxième fois première fois bi su ma juwul yaa delloo woon avance bi deuxième fois tey nga jël ko ma laaj la moo tax nga jël ko nga ne ma daa fu ma tool te daa lu ma bëgg a wane. làmb la woon rek jël naa ko nii bëri nañ mu daan ma waaw te tamit waaw yàlla na ndam li jig yàlla na si am ay ndami ndam comprendre nga mais man ak ñu may seetaan man xam naa man ki ma doon man xam naa jàmbaar bi ma doon yéen waaw man comprendre ma ko waa ba tey comprendre fu dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel gars yi ñu ngi may naan dangaa teeyul ak deful li yee man bu ma daan ba may bëreeg Tafa Gueye de damaa teey arrière may ko pour mu bëre ma daan ma ñëw ñaax maa sekk ndaanaan boo may booy ñoom ñoom mag quoi mais maanaam man fi ma toll nii egu ma foofu maanaam sama at egul foofu noonu quoi mais sama jàmbaar moo ma fa yóbbu. d'accord comprendre nga. Uh-huh. yee mais tamit man ñii di ma maanaam comme ñii di naan tey nag teel ndeysaan dañ maa bëgg quoi. Mm-hmm. yé tey jii dem bu ma taxoon xaar ko ndax defet moo ñëw rek ba daan dañuy ne xaar bi daa bëri damaa dox si koom mi kii moom lu ma quoi te tamit man non moom daa daw rek di ma song bi ma song bu ma puusoon sax moom mun na daan ndax dama kaa dóor ay coup mais tey jii nii man maanaam comprendre ma lu ma daan. yow xamul la sax xamul lan moo ma daan moom gëmul ne daan naa. def ma sax action déggoo li ma moom dama ko dóor mu daw di jël jël bu baaxul. da non man xaw ma mais tamit waaw lu jugee wul si yàlla rek naa man yàllaa ma xañ. mais loolu dama la jël sa combat Tapha Gueye laaj ci la ngeen ma dama doon arrière def quatre appui ma laaj la luy problème bi ngeen xaw ma. nga daan wàcc sekk naanaam nekk combat nag boo gënoon na fonk ndax naa ci dara sa côté entraînement ba ci sa côté communication communiqué woo ci woon ndax da nga ma làmb ju côté communication ñii ne Laurent dafa manque récupération ndax Laurent dafa amul ñu koy doxal mystique wala lan la parce que loo Laurent dafa mel ni combat bi yow yaay def lépp léegi mais tey jii nii yee man loolu noonu mi ngi commencé sama premier combat à ren ko quoi oh. ba tey saa man nag bu ma la waxee dëgg sama làmb dafa métti de oh. waaw yee tey jii nii du ma ñàkk mukk bay maanaam xasar wala dara mais man sama làmb yombul quoi sama làmb dafa métti. ci si côté bépp ak a métti. mais maanaam man munul feeñ si man ndax man jàmbaar laa. non non xeex kom nan. mais nan man maa ko xam. waaw man sama làmb. maanaam yee mun nga ma gis nii nag. waaw mais man xam naa lu nekk. waaw sama làmb daal yombul. waaw mais. toujours rek dafa may yokk jom torop waaw waaw. Laurent Seck dafa mel ni ci am déception. non non tey ñun ñaar ñëpp doo ut te ñun ñaar ñoo yem fa yàlla. bu ko yàlla maye bu ma si amee lu ma si xaw a calculer rek weddi naa yàlla. waaw te yàlla bi ko may. man yàlla boobu daana ma may. waaw comme lan mooy problème bi mm. yàlla naka ndam li jik yee suba bu ma génnaatee di bëri yàlla na ma yàlla may lu gën si man man lu gënul si man yàlla du ma ko may yee mais man laa la wax damaa war a tekki si làmb dama war a doon jàmbaar quoi ndax man tey jii sama làmb bu yàqoo bu ma wayadee man ñu bëri dinañ wayadi barki leeru alxuraan mais tamit tekki tekki la rek comprendre nga yee même sama làmb bu yàqoo mun naa tekki jee feneen quoi comprendre nga mais man laa la bu ma essayé si àdduna ñii échec dina bëri torop waaw. mais Laurent ñu gis ci combat bi da nga ay émotion yoo xam te ni gis nañ ñu bari dañ leen ndeysaan donte euh, dañ ko yërëm yërëm bi mooy xam nañ ni Laurent buggul defet ko li wax yàlla suñu borom nag moom mooy dogal mais ñu gis ñi lan moo tax nga tuur ay xéewal lan la lan la Laurent lan la tuur xéewal bi lan la. non jaam laa nag bi ut mm. yee mais maanaam man. waruma yàgg si yoon biko ko waa boo xoolee yàlla da leen di ay misaal man yàgguma si làmb yee man tey jii ni man lu bootu sama ginnaaw dafa bëri ñëpp nag am nañu lu bootu seen ginnaaw barki allah gi fàllu sama mère man la mbuggee am si doom yee man maay caatam billaay walaay taala mais man damaa doon jàmbaar boo xamante ne ni événement ba maanaam ba may xàmmee ba nii mosuñu ma jëndal yëre événement comprend nga. yee man maanaam lépp dama ko teel a dundal sama bopp. yee ba ma xawee xàmmee commencé di génn si mbedd bi laa la wax lépp maa koy dundal sama bopp mo tax man dama war man maanaam warul yàgg quoi. mu ñëwaat fekk ay boo yoo xamante ne yàlla boole ma ak ñoom seen situation mit yow sëñ Fallou daal yàlla baax na mais man daal waaw waruma yàgg ko waaw. waaw yàlla baax na ko waaw lu bootu sama ginnaaw la rek mais man bu doon man ak man kese sax yee man non man awma problème mu àdduna ko waa uh-huh. mais boo daanoo nag di nga dégg lu ne waaw mais tamit ñiy wax ñoom dañuy wax rek waaw tamit mais tey ji man daan naa boo xoolee sax yee kenn waxuma wax bu ñaaw ko waa ndax ñoom xam nañ man ñu ma jàppantal ñëpp dama leen daan mais man lu daan man xamatuma ko te tamit suba bu ma xasaatee ba dem tamit waaw noonu la demee rek. waaw te komba bi def naa si ñaan def naa si lu ne. Hmm. ut naa si lu ne. billaay wallaay taalaay dem naa si fu ne. waaw mais tamit yàlla moom boo utee lépp ba def lépp hmm. benn décidé moo te yàlla xëy décidé ko waaw barki leeru alxuraan. te nag man waaw sant yàlla daal. waaw ay nit woo ma di ma ko wax muy ba nga ñëwee kottu liis jooy lan moo tax nga nga am ñëw rek kottu liis jooy. waaw moom xam na li ma daj si combat bi te moom it combat bi ñun ñoo waajandoo combat bi quoi waaw gi nga liis tey gii nii gars yi dañoo dof rek. billaahi maanaam ku xamul xamul quoi. barki leeru alxuraan billaay wa taalaay combat bii la sax wala xawma yeneen combat mais li avance am bu ko jëlee man maa koy téye waaw mais waaw làmb la daal te liis maa ngi moom luñ sekk sekk nañ ko waaw làmb la mais tey jii yee làmb dafa garaaw garaaw boo xamante ne nii ku si nooy bopp ku ne yee ñu am ñuñ la féewale mais man làmb bu ma naree féewaleeg sama mbokk yàlla naa dee si torox waaw man liis man xam naa fi ma teg yee te xam naa ni mel si man quoi loolu du question ah. quoi waaw ndax tey jii boo xoolee hmm. man ba may génn di bëre gi avant ma daanu la doo jooy loolu yërmande moo koy def quoi yërmande si nit comprendre nga ah. waaw comme kooku noonu lis bu sañoon man du ma bëre barki leeru alxuraan bu sañoon moom man du ma waaw ndax daa daa am yërmande si man sax laa lay wax ni barke allah gi fàllu may jàppante daf ma fay jële jël cooli mun nay coow ma taxaw nii di ko seetaan waaw comme kooku dalaa yàgg soutenir quoi yee dafa am man ñaanuma yàlla raw li si làmb barke allah gi fàllu billaay wallaay taalaay fekkee lu ma lay amul fii ma toog nii yàlla bu ma fi jóg billaahi loolu gàcce la si man. comprendre nga. Uh-huh. mais lépp làmb la ko waa mm-hmm. waaw uh-huh. waaw. Uh-huh. Uh, bu Laurent Laurent ba tey am na ñoo mën a bëreel nag daal kàlla macha allah Laurent ñu ngi naan dafa war a defaru ci. ndax parce que Laurent nag dafa am fu mu toll say supporters nag am loo xam te ne duñ la ko pardonné ndax ñi la bëgg bari na kon ni ñu ko waxee à chaque fois Laurent dafa war a dem defaru ji defaru ji boobu nan nga koy déggee parce que dañ laa yóbbu. non tey jii ni dëgg la quoi tey jii maa ngi daan daanu yoo xam xaw ma lan la. tooñoo kenn. non non man moom ba fa dëgg yàlla lu ma wax sax suur rek man aw ma problème ak kenn barki leeru alxuraan tooñu ma kenn bu dee samay ñaankat ñoom ñëpp samay xarit lañ te yoreel ma si kenn dara waaw am na ñoo xam duñ ma fayeeku sax nag comprendre nga yee mais tamit tey jii nii bu ma tooñoon nit sax laa la wax ni nit taxul ma daanu waaw ah, boo bëggee dégg man du ma mbër yooyu di daanu ñu naan daa tooñ di wala daa def lii de non non man tooñu ma kenn te yàllaa ma xañ waaw waaw ñun moom ñi ngi si kawam daal waaw ngi si kawam daal mais combat bi gis nañ nag Laurent wala physique yi man nag sama combat bu ma ñëwee damay entraîner quoi waaw ah, li war si man lépp dama koy def ko waaw waaw xanaa yàlla weddi kay ah. Ah, te sant yàlla daal waaw waaw ñi ngi si kawam nag barki yàlla ñun daal ñi ngi si làmb rek waaw mais tamit buñ gisee lu gën làmb lool lool lool tamit dinañ si soobu ko ndax ñun ñi man ñi ma bëgg yee nekkul làmb moo tax ñu bëgg ma waaw ma bëgg man xam naa lan moo tax ñu bëgg ma ñoom xam nañ ko mm-hmm. waaw waaw tey jii ni man maa leen yokk coono chaque jour sax barke allah gi fàllu waaw mais ñun daal ñi ngi si suñu liggéey bu baax waaw lu ñëw nag ñu nangoo muñ doyloo yàlla ndax ba ma daanoo ba tey maa soogee génn def émission maa ngi gis ay site yoo xam dañuy dugalaat samay émission yu bees sax mel ni damaa def émission ye maa ngi soogee génn nii def émission nii quoi waaw te tamit maa ngi sant yàlla bu baax a baax am tey Laurent tey su amoon métier kon day focus ci day focus ci li métier boobu continuer ak làmb am na métier de ah. waaw am na métier à part làmb damay liggéey dama daan liggéey téer quoi ah, yee ah, maanaam entraînement yi mayu ma loolu ak ñu topp sama ginnaaw yee bu ma demee liggéey téer man kese maay am ñoom duñu am waaw loolu toujours dama koy bàyyi xel waaw moo tax quoi saison bi instant bi li ci dese bareetu combat xajatu fi Laurent instant bi nan ga nan nga gisee saison bi ak changement yu bees yi ñam nga ci wala changement yu bees yi yi nga changé lamb ji léegi nu mu a commencé cinq minutes ñu lay may ci ci bunti bekk yooy changement bi nan non changement bi moom gi nga am na loo xamante ne ni yee sa manager moo la war a woo wax la ko quoi comprendre nga man bu ma la waxee dëgg sama manager woo ma wax ma. changement bi lii la lii ñëw na ñëw naa ba foofu ndeysaan Modou Anta sans frontière moo ñëw di ma expliquer lépp waaw moo daan moo ma ko wax waaw loolu sama ménagère wax ma ndax sama bés combat passé ñëwul estat non xaw ma non il sa demaloon Eric bi quoi sa combat ba li passé sa ménagère ñëwul quoi moo tax affaire xaw ma si lu bëri yor naa seetu sa di dugg Mour Anta moo daw si ne lii boo ko defee dañuy dagg sa xaalis. Ah. comprendre ma ko sant nag bu baax. ndax bés boobu moom moo ma fa taxaw kom taxaw ménagère. waaw mm. ah, ndax boo may bëreel bés boobu ménagère am ñëw na quoi. waaw ah. te ménagère am fii nii la dëkk tout près suñu dëkkandoo la comprendre mm. mais tamit am na loo xamante ne ni du question dara quoi. Mm. yaa dañ koy wax rek. waaw mun loo si ko waaw dañ koy wax mun loo si mun anta moo ma taxaw comprendre nga dundal ma fa dund bu rafet mm-hmm. yee tey jii nii Modou Anta jëlul samay cent pour cent jëlul samay dara comprendre sans ménager Aline Gueye mooy jël lépp comprendre nga yee moom moo waroon ñëw waaw def lu ko war yee mais tamit waaw xam naa tamit leenee mun na ko ëppal eh, waaw mais woo woo ma maanaam pro règlement yu bees yi xaw ma si dara barki leeru alxuraan ba ma demee ba foofu noonu laa xam ne làmb léegi 19 heures lay jeex. billaay wallaay taala déggoo li ma la wax après laalool Modou Anta maa ngi ko siy sant moo ma wax lépp. d'accord waaw mais après ba na la ba nga ma nag woowu ma mais tamit woowu ma waxu ma dara meet lan la may woo yàgg naa bëre ba pare te du ma woo loolu du dara quoi. waaw. mais règlement bees bi daal nice. bu dee làmb daa war a teel a jeex pour nit ñi di ñibbi si jàmm ñu ragaloon na ñëw instant ndax bañ a guddee. di mën a ñëw quoi. waaw d'accord léegi ak yow muy sa frère sa xarit muy Siteu jóge voyage ñëw pour waajal combat royal moom ak ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, Modou Lo nan nga gisee combat boobu ay état ak état physique Siteu nan nga ko gisee. non non man moom gaan. yàlla na yàlla may ndam quoi mais seen état de physique ak de kii maanaam yooyu noonu yëpp jarul discuter comprendre nga booy ñaan ndam ngay ñaan te yàllaa ko yor yàlla na ko yàlla may Siteu quoi waaw mais tey jii nii ñoom ku si nekk xam nga li nga war a liggéey ndax Modou Lo mbër bu ndaw waaw tey jii boo ko amee danga ngaa war a liggéey te teg si tamit ngay bëri combat waaw roi des arènes quoi mm-hmm. yee bi nit warul la ko gën a bëgg waaw ndax te jii man bu ma sañoon damay egg foofu ko waaw. di la jaajëfalaat bu baax a baax ndax xam naa ndeysaan bëgg ko woon sax def sorti mais yow moom yow sama xarit nga sama lonkoo nga sama fiis nga yow moom sama sama féete nga. te am na loo xamante ne àdduna bi yëpp xam nga ko di la ñaanal ko ni ma koy waxee rek di la wax courage làmb moom noonu la àdduna ak loolu ñoo ànd ndax ku may sa bopp lu yàlla may nga jël te xale bu ndaw nga li la dese moo fuuf di la wax rek yàlla boo amatee combat yàlla na la si yàlla defal jàmm te di la wax àdduna noonu la bul sëngee bul def dara. la noonu yow man du ma ñàkk ba saali te du ma am ba naagu. waaw. billaahi ndax man du ma topp bànneex bay réeréelu quoi. billaay ndax àdduna yàllaa xam moom. yee man balaa ma juddu yàlla bindoon na ne naa bërik sekk ndaanaan daf may daan. lii yëpp waaw lii lii sama kanam mun na gën a métti sax. waaw man mun naa ñëw di daanu rek mun naa ñëw di daan rek waaw lépp yàlla la ko waa dama lay maanaam bu ñu maanaam place yàlla ñun buñ fa jëlee yàlla di fa teg waaw ñun toujours rek nañ xam ne fii mooy place yàlla waaw ah. man toujours noonu laay doxee quoi lu dul yàlla nag neen la waaw man yàlla laa gëm quoi mais tey jii ni maa ngi sant yàlla nag bu baax a baax mm. waaw di sant combat bi dama see daj coono quoi waaw ànd seeg dem daj si coono waaw tamit yooyu coono bi ma si daj moo gën a yokk sax may dem liis di jooy ko waa billaay wallaay taalaay waaw non non yow mais sëñ Fallou ko waa billaay suba boo fi ñëwee tamit nuñ ñun moom moo lool yee waaw waaye sëñ Fallou rek di jégalu ñëpp nag ñu may bége maa ngi leen di jégalu bu baax a baax yee maa ngi leen di jégalu ko waa barki leeru alxuraan waaw di leen maanaam maa ngi daal billaahi man comprendre ma mais sëñ Fallou rek yee waaw yàlla neen dege bu neexee dafay tas bu nakaree dafay tas waaw comme yàllaay buur ko waaw waaw sëñ Fallou rek. mais question de saabu carotte ndox kese di jégalu daal barki leeru alxuraan waaw yàlla noppi na waaw kontaan continuer mer maîtriser ah. billaahi gën a gën rek. ay alors hmm. ah mais loolu man li ma jaaxal mooy day daan su daanee wax saabu karoot bi te da ngaa jaamu saabu karoot ah. <laughs> wala ndox bi wala ndox kese war nga ci sangoo bàyyi sa yi ngay def. <laughs> saa ma bëgg a wax. sangoo <laughs> waaw kay lii lañ bëggoon a gis Laurent rek bilaay ñun ñu ngi si place Ndiouf ak yaa ngi saabu karo day wóor la maa ngi ne sangoo nga ko da ngaa xëppoo naa sangoo daa ko kay ah, nga sangoo léegi <laughs> non da lay soj rek daal <laughs> ah, yàlla noppi na di ko jaajëfalaat bu baax a baax nag wax dëgg yàlla am na min boo xam te ne xàmmee wuñ ko moo tax nag c'est normal su waxee te reetaanul il faut ñu reetaan loo ko nag di ko jaajëfalaat bu baax a baax di jox gaay di daje prochainement incha allah